salaamaaleykum salaamaaleykum Kër Massar man Mame Gana maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am nag kontante bu mag ci bis bi monsieur ah FM yépp kontaan na Kër Massar kontaan nañu parce que li tubaab di wax l'histoire retiendra lii bis la ci bis yi ah te bis bi ah du bisu cuune nekk ci responsabilité nga jël ci Kër Massar yële ko ci pàcc meilleure askan bi rek ci Kër Massar nga jël sa responsabilité parce que xam nañ ni pàcc mbëbëtu askan bi moo ngi ci yoon bi te mooy yoon bu baax ah di wax rek Kër Massar di euh, ah Moussa Sow bu ñëwee jàkkaarloo Kër Massar yëpp jël engagement bi am fu mu jógee ñun ñu am loo xam ne moo ñu taxoon dugg ci politique mooy buumu jaam bi ñu tënkoon waa Kër Massar. loolu bu ñu taxee dugg ci politique Moussa Moussa Sow jógee ci ab parti ndax buumu jaam bu ñu ko bëgg a tënk kon dañuy yaakaar rek ànd mënut a ñàkk. parce dañoo ne Kër Massar bu bees dañoo am commune bu bees am département bu bees suñu amee kilifa bu mel nii mu xam boppam li leçon la pour ñëpp parce que dañoo dépassé boobu Kër Massar parce que Kër Massar ab buum lañ fiy tekki su nit ñëwee xamul Kër Massar ñëw di yeewu buum dañ ko fay bàyyi parce que ñun situation boobu nag ah maam Gana Kébé ko dégg ci politique parce que buumu njaam bi ñu tënk Kër Massar man moo ma dugal ci politique. ah kon monsieur saw moom dëgg na information bi boobu moom xam na ni fii duñ fi tënk kenn kenn du fi yeewu kenn dañuy ànd jàppoo changer Kër Massar parce que dañoo am benn chance muy 2014 candidat yi demoon 2014 yëpp ñoo ngi fi ñoo ngi ci faj bëbëtu askan bi kon y a pas lii dëgg la dañoo bëgg waa Kër Massar yëpp. bàyyi ñëw jéem a faj bëbëtu askan bi parce que askan ma saar fii metti dafa bari ñëpp dañoo war a bàyyi ñu jéem faj bëbëtu askan bi parce que Kër Massar bu bees lañu wax kon nag mbir su ni su toll ci bii dimension ah ay kilifa rek ñoo mën a toog waxtaane ko te dama yaakaar ni yalla mu ngi bëgg may Kër sa chance mu ngi bëgg a may fajj euh, faj mbëbëtu askan bi chance parce que délégué yi buñ mouré sét seen buñ dugg yalla dogal ñuy commencé di gis xam yoyu dëgg bi fi la ah lool dañ ciy sant yalla bu baax. ah di wax rek ni Kër sa bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi. victoire bi la te Moussa Sow ñëw nga inaale victoire bi te faj nga doog askan bi ñëw nga ciy xaar parce boo nekkee ci sa point di liggéey di def social ñuy lay dégg ñu di ko xam ku nekk bëgg na laa xam ku nekk bëgg na laa gis mais tey ji la ko yàlla dogal dëkk nag boo ci nekkee da war a amal njariñ dëkk dëkk ba. kii ab maire la maire d'abord yërmande lan mooy maire mooy yaay de yaakaar naa yaay dafa war a am yërmande kon façon nit yi la ñu soxla ci Kër Massar parce que Kër Massar dañoo soxla nit yu leen yërëm nit yu leen faale parce que Kër Massar dëkk la boo xam dañ ko war a defaraat dëkk bu ñu defar nag dafa am yëg-yëg te koy gis dafa am yëg-yëg te dëkk ba dafa war a amul ci dëkk ba. soxlawuñ ku comprendre di laaj fan ngay jaar pour Kër Massar Kër Massar dañoo soxla nit ñoo xam ne dañ koo xam war ko defar nekk que il faut nga xam nit balaa ngaa laaj da xam li ngay laaj bi mu doon ñun amuñu temps pour tegtal nit Kër Massar fi nga war a jaar fii moo baax fii moo baax amuñu boobu temps dañoo toll ci def Kër Massar defaraat ko nañ ko jox ñi ko xam ñu defar ko. xam ku dem élection 2014 wër nga Kër Massar kon ñi duñ leen wax Kër Massar fi ngay jaar wala demal ci délégué ñak xam ah Kër Massar en tout cas ñu ngi leen di sante di leen gëreum di wax rek ni fajj mbëbatu askan bi fay nekkal Kër Massar Mohamed moom comprendre na nit ñi comprendre nañu projet faj mëbatu askan bi dañuy ñaan yàlla nañu ñëw parce que l'heure a sonné temps bi li ñu desee bariwul te Kër Massar dafa soxla ay doomam Kër Massar dafa soxla Kër Massar bu bees Kër Massar dafa soxla ñu faj mbébétam mbébétam mooy li fi nekk ñi fi nekk ah yaakaar ne affaire bi daal ay donnante la ma sàmba demba yaakaar na alhamdulilah ba ñu amee ay cadre ay kilifa yu mel nii nga xam ne ñëw ngi ci Kër Massar te teel nañ comprendre Kër Massar te ñoo ngi continuer di wax ci Kër Massar te duñu mus a di wax ci Kër Massar bu ñu wax rek cër fii moom ànd nawle moo fi nekk ci fi ñëw barki démb ak ki fi ñëw tey ñoo bokk benn parce que tamit ànd nawlante parce que ab dëkk boo ko bëgg a defar ah da ngay woo nit ñi ne dañ leen toog xalaat dañoo bëgg a defar dëkk bi ku ci nekk indi sa participation ñu waxtaane ko ñu xool ni defaree Kër Massar rawatina kilifa yu mel ni yéen nga xam ne yàgg nañ Kër Massar wër Kër Massar wër di ku leen ñàkk a jox seen kër mooy dañ leen xamul. encore une fois ñu ngi lay dalal. di am kontaan bu mag di dalal la kiy faj mbëbëtu askan bi ah di sant nak presse bi di am kontaan bu mag ci yeen parce que bu yombé rek yeen na les jeunes ñu ngi kontaan bu baax ci yeen di leen wax ah affaire bi li la affaire bi gem la ak bëgg té yéne ngi ci ah bu leen tekki eh, les femmes monsieur madame Manga chapeau parce que rek ñu ngi gis ni rek yéen ngeen di jàpp pas ci faj mbëbëtu askan di mais yéne ngi japp ci Kër Massar yéen macha allah macha allah ah mais wa daru salam nak ñi nga xam ne ñoo ñu recevoir ah kontan nañ ci yeen bu baax ah di leen jox rek rendez-vous ci liggéey bi buñ ko teggi ndax tamit nag ku am gan yokk juróom te am nañu gan jërë jëf merci beaucoup